conseil départemental kat nekk na loo xam ne nii lu am am solo la ci ñun ndax ne am na solo ci suñu yaay yii nga xam ne ni fajar la ñuy xëy guddi la ñuy wàcc balaa timi sax ñu nelaw kon nag war ngeen a xam bu baax a baax a baax ci li ñu jëm ndax kat Abdou Bigue Ndiaye moom mi nga xam ne ni saabu bu masaan a jóg ci njariñul ndindi rek la jëm tey ñu ne ko bokk nga ci list bii xam nga ne lu mel nii mosu fee am ndax kat dama ne localité gox bu ne ñu tànn fa ndaw ndaw loola ñu tànn gox booba war na ñëw góor góorgóorlu ba gox booba duñ ca dellu ginnaaw liñ ko mën a defe nag mooy ñu daas suñu carte yi fanaanal le 23 incha allahu rabbi ñu won ne ndindi ak li ko wër ñu ngi ci ginnaaw liste Benno Bokk Yaakaar ndindi ak li ko wër mi ngi ci ginnaaw candidat honorable mataar Diop ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax bu baax bi mi ngi nii xam naa ne sax moom xam ngeen ko xanaa dañ leen koy waxaat ndax yaakaar naa ndaw ñi yaakaar naa temps fan yii yëpp ñu ngi dugg ci kër yi di def ay porta à porte di dem ci àll bi di waxtaan ak askan wi yaakaar naa bii moom comprendre nañ ko ñu xam ñu wax ne élection locale yi di tax mu am solo mooy ñaari vote la benn bi vote mairie bi la benn bi conseil départemental la maire bi nag ki ko jiite ñëpp xam na ko muy Abdoulahat Ka macha allah di jàmbaari Serigne Touba ku ne xam na ne ndindi ak li ko war Abdoulahat Ka fàttewu leen ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax baax a a baax nekk na koo xam ne ni nee na cër bu mën a génn fii ak cërum dindi génn rek sama xel di daal sama xol du du du du sedd macha allah ku ne gis xam na ne lim def fan yi ci Kéré Ndaw vraiment mu nekk sagu ndindi mu nekk sagu Kéré Ndaw ak doomi Kéré Ndaw Baba Ndaw ngi nii toog wax dëgg yàlla liñ fi def fan yi sedd na suñu xol ndax courant bi niñ ko indee ba mu ñëw foofa kon ñun ñëpp xam nañ ne kon Abdoulahat Ka lépp lu muy dox ci njariñu ndindi la koy def ci njariñu Kéré Ndaw la koy def ci njariñu village yi la koy def li tax nag may wax ñaari vote la lu tax moom am solo mooy benn bi mu mairie la ku ne xam na ne Abdou Lahad Ka moom sëñ bi moo koy tànn ndax ñun sëñ tubaa rek lañ gëm sëñ tubaa lañ bëgg sëñ tubaa lañ wóolu sëñ tubaa lañ xam lu sëñ tubaa joxoñ moom lañ joxoñ lu mbëgg moom lañ bëgg lu mu bëggut bëgguñu ko li tax mu am solo mooy ku ne xam ne ne administration dafa am solo mooy moo tax ñu koy vote li tax ñu koy voté mooy liste bi ñaar lay doon liste blanc bulletin blanc lay doon ak bulletin bii liste bi sëriñ bi tànn nag ci liste bii lay demee muy liste bii ngeen di gis mooy bopp fas wi yaakaar naa nag xam naa ne moom fii ndindi ak li ko wër moom ci taali bi rek lañ mas a dox bëgg sëñ Tuubaa bëgg sëñ Fàllu woolu ko ànd ak suñu coordonnateur Alaaji Fàllu Njaay ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax maa ngi nuyu mboolem jigéen ñu fi teera maa ngi nuyu ñëpp premièrement ci nga xam ne ñoo fi andi mbooloom mi Soora Njaay ñëw na fi ak mbooloom Say Jóob ak mbooloom Ngoma Kan mbooloom Bali Mbay mbooloom nday njaay ak mbooloom njóoba jóob mbooloom mbooloom a kan ak mbooloom ku ma tudd nag xama ne moom lim moom ku lim da nga jum wala doo matal ñëpp daal teew nañ fas yéene jàppale ma tar joom nag buñ ko jàppale ba ma man lam bëgg nag mooy bu ñu fàtte dañ ñun benn APR yàgg nañ koo liggéeyal dañoo bëgg nag léegi mu jàppale ñu ñuy liñ bëgg daal liste ba nañ ci jàpp woteel ko mu gañ su gañee moom itam ñu ngi ci ginnaawam moom itam nañu jàppale nañu jàppale mboo ñii fi nekk kenn ku ne am nga sa dante kenn ku ne yaa ngi sa dante ñëpp nga ci gannaaw Alla Ndiaye mii ku mbooloom ko góor yaa ngi ci Alla Ndiaye mbooloom ko jigéen mi sama gannaaw ngi ma àndal nañ ko jàppale watee ko moom li mu bëgg ba mu bëgg moom itam mu jàppale ñu nit ki mënul laa jàppale te jàppalewoo ko ci la bëgg soo ko jàppale ci la bëgg bëgg su paree jàppale ci nga bëgg boo jàppalewul nag nga ko a kaas say droit waaye feeg jàppale ko a am yéen doo mën a kaas dara nañ ko jàppale mu am li mu bëgg bu ko amee ñu lim liñ bëgg danañ ko am wasalaamaaleykum wa tey damaa kontaan trop ndax képp xam département Mbacké xam commune bi Touba xam na sunu yaay Coombi Cissé kon tey jigéen ñi buñ dajee fii coom bi ñëwul seen biir toog sama xel day dal kon kontaan naa lool lool fii nag kàddu yi du bari ndax li tax lu bari miin nañ leen miin nañ téere bi ndax bu ñu wax ndindi zone 2 ndindi moom moo tax muy ñun ñi am ci ne ay ndaw lan gëm naa ne depuis deux mois yi ñu ngi ci terrain bi kër gu ne dugg nañ fa expliqué la sunu bulletin expliqué la sunu candidat muy honorable Matar Diop. comme li soxna may wax rek moom laay fekk si waat gëm-gëm bi mooy ñu fexe gagné nan fexe suuru élection le 23 ñun ñi ñëpp ñu génn en masse dem vote ji. nan ko gëm def ko wax ji mooy kenn ku ne ci yéen li lay may ëllëg njariñ li lay may ëllëg réussir mooy fexe suñu daa bi jàll. li dajee fii di lépp nan gëm ne euh, euh, élection locale lan nekk sëñ bi moom li li wax rek euh, loca Touba moom sëñ bi comme fay teg teg na ko pare. muy sunu baay Abdou Lahad Ka dan koy ñaanal yan bu oyof conseil départemental la ni xëccoo. kenn ku ne xam ne ñi fi nekkoon xam ngeen ko Serigne Fallou Mbacke moo fi nekk doomi Serigne Mbacke soxna Lo fukk juróom-ñaari at la fi def kenn ci yéen xamul Serigne Fallou ca gëm naa conseil euh, départemental buñ koy wax pour village yi mel ne Ndindi ak dëkk yu Ndindi ñoo ci gën a ëpp solo ci ci njariñ bi kenn mësu koo gis kenn mësu koo teg bët kooku nag bu lay laajaat yow gëm-gëm bi nga am mooy ndaw bi am si ne mooy honorable Matar Diop di ndaw di tëële bi dëkk bi nañ leen ndax buñ ko jàppalee man ngeen jàppale buñ ko jàppalee Pam ñaa ngeen jàppale su ngeen ko jàppalee Cheikh Mbaye Ndaw ngeen jàpp ndax ndaw la ñun suñu wàcc terrain bi suñu teree nelaw suñu dox bay bëgg a dee mooy lan mooy fexe ndindi jëm si kanam ak dëkk yi war ndindi loolu nag yéen ñu ci mën a dimbale fexe ba le 23 ñu génn ñun ñëpp sañse ba jekki dem wate ji tournée école yi sëriwut fii la nekk ku ne xam na ko ci yéen ñun campagne ju duñu leen campagne ndax ñu ne ak yéen fu leen woo ngeen wuy ñu fa loolu moom dañ dèjà dafa passé des mooy APR gañ Ndindi suur na nañu ñaan ngir yàlla ñu fexe APR gañ fi nga su ngeen ñu wadalee leneen buñ fi leneen bu fi amee yàlla tere ñun ndaw ñu ñooy rus ndax ñun njaru ñoo yëkki suñu loxo na président mën na laa gañeel kon nag wax nañ ko ko ba mu jox ñu ko te gis ñu ànd ak suñu doyen yi ànd ak suñu mag ñi muy ku mel ne Morlo mii nga ku ne xam na ko ci département de ak njàmbaaram ak suñu yaay combi Cissé mii li des mooy fexee gagné. man de dama leen di ñaan ngir yàlla yonte ba Serigne Touba ngeen fexe yéen ñëpp amul taayal yéen ñëpp ngeen génn le 22 le 22 dem leen duggi non le 22 dem leen duggi yéen ñëpp fanaanal ko ci frigo yi le 23 ngeen xë dem wate ji. bu ngeen ma bëggee saxal de bëgg a saxal tontu Alane Ndiaye loolu ngeen def. ñun waa Ndindi ñun ñi fi wër nekk fii yëpp bokk ci zone de Ndindi muy Ndindi ak village environnant yi ñu xam kan la ñu am. àdduna bi léegi dafa am nu mu tëddee kenn ku ne yaay jàpp sa doom yëkkati ko ba ñëpp gis ko sa doom mën a taxaw taxawal la di dem fa ni jëlee décision ya di jël ay décision di la ko indil. mais ndindi nag ñu am benn sens boo xamante ni chef de village kër kàbbu wax na ko démb nee na alaaji njaay sax du alaaji njaayu ndindi kase alaaji njaay tuubaa la kon ndindi am ku mel noonu gëm naa ni ñoom ñëpp war na noo bàyyi xiiroo bàyyi ŋaayoo topp ci ginnaawam ndax buñ toppee ci ginnaawam ci lay am doole ci lay gën a am fi donte am na doole ndax sëñ Tuubaa jàpp na ko sëñ Fallou jàpp na ko waaye nag mbooloo mi bu àndee àndeek moom ci lay gën a mën a fëgg ci taabal ji di jël ay décision di andil ndindi kon adduna bi noonu lay doxee léegi fu nuy jëlee décision yi bu fa sa doom nekkul dina am loo xam ne dina sooxe nga mere nga mere président wala nga mere ministre fekk ñooña defuñu ca dara sa doom dafa teewul kon ni xelam rafet na jotam am na ko bëgg na doomu aadama yi kon ñu jàpp ko topp ci ginnaawam dooleel ko ba mën a xeex indil ñu fii lépp loo xam ni gox bi bëgg na ko parce que politique lenn rek la du xiiroo du ŋaayoo politique lenn la dem wuti lu jafe saw askan indil leen ko waaye ña ngi koy wutali nag suñ ko xamul yow sax mën ngaa yuqat kon ñi ngi koy wutali nan la jàppale ndax politique loolu la dem wuti li jafe askan wi rek indil la ko du xaste du ŋiiroo dañu soxla courant dañu soxla financement dañu soxla ndox te loolu ko koy wuti kat daa war a ñime daa war a am fit kon sama discours tey foofu laa ko jëmee yéen waa ngeen xam ne am ngeen ku mat ku mat ku ngeen xam ne buñ ko jàppalee liñ bëgg lépp mën na ko am li nit di doon ci Sénégal rek mën na koo doon muy député muy leneen ca bu boobaa loolu lépp ci lay gën a baaxe ci lay gën a sedde maa ngi leen di jégalu ndax alaaji Ndiaye ñun gone yi nga xam ne ñooy gone parti bi ñun xam nañ kan mooy alaaji Ndiaye wallaahi xasim li may wax yàlla rek laa ko seedeel damay tëdd jë sama kaw la lu alaaji Ndiaye wax ko samay soxla fa ma tëdd mu réglé ko dikk na ma ndeyloo nangam ak nangam ak nangam xëy fépp fi nga xam ne moorloo féete nañu fa rek a alaaji Ndiaye féete nañu fa dañuy dikk sax fekk ko ci mbooloo am ministre taxaw ñu ne ko mënuñu koo ñàkk gis Ablaye Ndiaye alaaji Ndiaye dem waxi jéeg ministre bi na koy gone affaire yi mënoo leen a ñàkk a wax ak ñoom lépp nag bam ñuy yiir xamuñu woon ni sax dina doon coordinateur zone ñu koy ñaanal li ñuy ñaanal moorloo ni mu mbëggee mu nekkee ko député la ñuy ñaan alaaji Ndiaye programme yàlla na ko Serigne Touba def député ndax yaakaar naa ne su ko doonee parti bépp lay soutenir man Alaaji Ndiaye matuma ci moom seede ndax fu ma moor teg rek Alaaji Ndiaye foofu la ma teg. choix de sëñ siidi Abdou Lahad le choix des femmes le choix des jeunes le choix des chefs religieux de Touba le choix du président Macky Sall. ñu yooyu yëpp nag maa ngi koy jaarale ci sama mag le coordinateur de la zone de Ndindi muy El Hadj Fallilou di adjoint au maire kenn ku ne xam taxawaayam ci dëkk bi fii ci Ndindi ak ci Sénégal yëpp kon ku am ku mel ne El Hadj lu Ndiaye sa xel mal naa daal looloo tax moom monsieur le maire ne ma loo jàppoon tey malgré xam ngeen ne tey xan na ndax tey mooy clôture campagne bi waaye loo jàppoon àndal ak sa waa zone dinaa dinaa ci dellusiwaat léegi dem fekkeel ma ndaje moomu xam ne El fale lu Ndiaye moom lay def fële ca Ndindi dans le cadre de la campagne électorale du 23 janvier xam ne ñëw na ba pare ca waa Ndindi nga ubbee Daaru Xuloos tëje Ndindi xel mën naa dal ci wax dëgg yàlla liggéey boobu. kon bu ñëwee fii ci Ndindi ngeen ubbe nii vraiment xel day dal ci liñ dëgmal muy ginnaaw suba en tout cas El Hadji nee na. maa ngi lay sant di la gërëm bu baax ni nga ànd ak moom liggéey bi liggéey bi nag liggéeyu sëñ Touba la liggéeyu Touba la tey jii adjoint au maire la topp ci moo yi moom euh, mosoo ko yàqal dara lu maire nekk vraiment El Hadj Ndiaye nga ca wet ga loolu nag moo tax kon ñun booy def lu mel nii lu coow li bari mënuñoo ñàkk ñëw vraiment dëgëral la ci li ngay def ca man mi ñëw aussi ngay sama mag ñaar fukki at a ngi nii ni ma ko waxee ci baaba ndaw ñu ànd di liggéeyal dëkk bi di liggéeyal lu jëm ci màggal gi ak leneen ak leneen ca kenn gënu la ca jàmbaare aussi kon defe naa euh, ndindi moom bu fi El Hadj Ndiaye ndëndëm war naa samp ndënd li ah kon loolu loolu rek moom la ñëw di ko dëgëral ah yëf nag Ah, waa Touba dañoo war a am fulla ak fayda ndax suñ mentor muy le président Macky Sall dafay liggéey loo xam ne nag ah, ku gëmmoon sax di dox mën a jël sa loxo teg ci defe naa daaw jéeg ubbi na Ila Touba bi nga jóge fii Touba dem Ndakaaru ci loo xam ne du mat une heure loolu amul fenn ci menn réew ca loolu sëñ Touba la ko defal barki démb mu def fi hôpital boo xam ne amul ci Afrique yëpp 37 milliards de financement gis ngeen assainissement bi ñuy def ci dëkk bi gis ngeen lamp ñuy def ci dëkk bi lampadaire yi gis ngeen ndox mi forage yi liñ ciy def loolu aussi ma profito comme maire bi moo ma yebal fii ca daaw ñu amoon lu mat fanweeri kilomètre d'adduction d'eau yoo xam ne dañ koo defoon suñ budget bi fii ci ndindi am luñ leen ci beraloon ci dëkk bu ñuy wax Tawfeex ndindi loolu nag ñu tàmbali gas Euh, entreprise biñ ko jox jox ko ay financement yi mat sëkk ñu tëral biñ fi ñëwee mission bi xool cartographie ne fii la war a jaar ñu andi tuyau yi ak lépp li ci aju ndeke tuyau bi nga xam ne techniciens yi moom la ñu wax pour ñu piquer ci ndox mi tuyau boobu euh, tuyau boobu du am ndox ñu nekkoon kon au que ñuy def branchement yooyu ci tuyau bu amul ndox donc nañ def maire bi woowaat ñu ne nañ defaat abana yokkalaat leen lu mat benn kilomètre loolu moo xamoon tardé liggéey bi waaye euh, ñi nekk Tawfekh Ndindi na seen xel dal wax dëgg yàlla ndox mi léegi ñu fu safara ko incha allah kon may ñaan ñëpp rek ñu voté la liste Benno Bokk Yaakaar ci commune bi ca leeral nañ ko léegi liste bi nga xam ne mooy choix sëriñ bi ci Abdoulaye Ka jiite ko au conseil départemental liste bi nga xam ne suñ frère Matar Diop moo ko jiite ca ñun ñi ñëpp ñu ànd ca loolu daal laa bëggoon a wax fii ci Ndindi. message bi yaakaar naa leer na te ñëpp xam nañ li tax ñu jug mooy ñu ngi ci campagne électorale war tëj campagne bi tey war koo tëje fii ci Ndindi yaakaar naa loolu xel dina ci dal ndax képp ku bëgg a falu boo ñëwee Ndindi. sa xel war naa dal ndax fii fi la ñuy faloo ku bëgg a falu di nga ñëw ndindi kon nag maa ngi félicité waa zone de ji nga xamante ni ñoo yore liggéey bi depuis pré campagne bi ba léegi ngeen taxaw si biir campagne bi aussi ñu gis taxawaay bu rafet bi nga xamante ni def ngeen ko ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm message bi nag leer na élection yi ginnaaw suba la ñuy ñaan population bi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Ndindi bu dimaas jotee ñu teel a jug teel a xëy dem voté ji pour coalition benn Bokk Yaakaar am ndam fii ci Ndindi ak ci Touba yëpp loolu gëm nañ ne dina am ndax liggéey bi ngeen fi liggéey wane na ko kon nag liñ leen di wax mooy bu ñu àggee ca urne ya yéen ñëpp ngeen voté pour la liste Benno Bokk Yaakaar marron beige bëgg nañ daal bu 18h jotee ba ñuy dépouiller enveloppe buñ ubbi ñu fekk mu maron soir du 23 janvier danañ ànd ak le candidat Matar Diop ñëw fii fekk fi suñu mag El Hadj Ndiaye ñu àndandoo feete victoire bi nga xamante ni Benno Bokk Yaakaar dina ko am fii ci Ndindi maa ngi leen di sant. vraiment ñi nga xam ne sama gars yi nii leen ñu wuysee muy sama xarit sama rak di Morlo ànd ak délégation bi ma ànd lépp ñu mën cee lim Adja Comba ak ñoom day loo ak ñi ñu àndal ñëpp dafa rafet rafetaay boo am solo waxatina rawatina sama rakkat encore nu bokk bàyyi bokk lépp muy ma fëri moom itam ñëw li ma ci neex mooy ñu bàyyi ñëpp fi ñu waroon dem fépp ne yi Njaay moo xewle nañ dem ci moom dama ne ku lii ku mu doy dara du la doy ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax di leen xamal ni nag ñun waa zone 2 ak ñi ma àndal muy Baba Ndaw mi ak Abdou Bigué ñuy coordonnateur yi sës si man ba sëñ Abdou Lahat mi sëñ Abdou Karim ñoom ak sëñ Moustapha Ndiaye ak ñoom bi Abdou Bigué ak ñëpp li mënumaa lim ñëpp dañoo taxaw ngir lan liggéeyal Serigne Touba waaye liggéeyal suñu dëkk muy Ndindi liggéeyal nit ñi nag wax naa leen ne leen moo tax ñu dugg ci politique mais nun suñu Touba dimbale nu sëñ Fallou dimbale nu ñu mën nañoo toog ci suñu lañ toogoon ba nëgëni waaye nag danoo bëgg a jàppale Ndindi bëgg a jàppale Touba loolu nag ñu bëgg koo jaar ci lan duggaat ci politique nañ ci duggee woon ndax nun ba ma déggee ñu ne Alaaji Njaay du politique saint re damay jàpp ndax damay wax 2013 ba ba nga xam ne maa ngi dugg di woteel Abdoulaye Wade fii astafurlah Abdou Diouf di ko mitingal yaakaar naa ne gone yu bëri tey juddu wuñ wala boog tey moom xam ñu luy méttin ñu nekk di liggéey di liggéey boobu ba nëga ni boobu man mii maa nekkoon vice président responsable jeunesse socialiste Moustapha Mbaye doomi Gallo mbay ca lu ca Daaru Xudoos nekk président bi ma nekk adjoint am ñuy liggéey ba nëga ni kon ku ne El Hadj Ndiaye du politicien da ngaa xamul li xew wala xamoo woon démb kon li ma bëgg ñu xam ko mooy delsi nañ ci terrain bi nag duñ ci may kenn duñ fi yaatal kenn dañoo fas yéene ànd ak nit ñi liggéey liggéey ba ñëpp xam ne liggéey nanu liggéeyal Touba nag mooy nekk ci terrain bi. xam ne mooy mooy li nga xam ne bëgg nañ ko ci def ko mooy dañoo fas yéene jàppale dëkk bi jàppale dëkk bi ne jaareel ko ci président Macky Sall président Macky Sall nag jaar ci moo tax mu am suwa tànn ki nga xam ne honorable Matar Diop boole ko ak ma Mafari Ndiaye ñoom ñi ñu ànd ngir liggéeyal yoon wi loolu nag moo waral tey jii ñuy daje une semaine ne ñu nekk ci àll bi. li may waral sëñ ma fari sëñ ma tàmboor leeral la ko mooy zone 2 bii dañoo def liggéey boo xam ne nii amuñu ay moyen de suñu moyen bopp daanaka li nga xam ne gis nañ kenn ku ne xam ne li fi dugg ci moyen waaye ñun dañoo jël loolu ànd ak loolu boole ko di wër zone 2 bii lu mat semaine a ngi nii àll bi nga xam ne daanaka gisuñu fa kenn ñoom ñoo fa nekk démb def nañ dëkk bi def nañu keere mbay keere ndaw def nañ mayel def nañ pël yi def nañ surang def nañ fu ne àll bépp toj nañ ko démb ñu ngi naka ni démb noo ngi ca kër kàbbu tey foo mitin bu toll nii kon nag léegi ñoo ñi nga xam ne dañoo jóg nekk di liggéey porte à porte ñu def ko ci dëkk bi ba noppi wërewaat yoon bi àll bépp àll bi mën ngeen faa bañ a dem ndax nooy na nepp te ñun ñoo ko nooyal kon nag ñoon na jar nañoo sa félicité sant leen xam ne seen liggéey def nañ ko te loolu liñ ci bëgg mooy bu bis baa ñun ñëpp ñu ànd ku dugg ci urne yi yor sab enveloppe nga woote bii nga xam ne ci la fas wi nekk maa ngi dégg nag ay nit naan fas wi baaxul ak fas wi nii fas wi naa aw fas moom ku nekk xam na ne baax na ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba muy geer kat fas la waroon yi sëriñ Tuubaa kat ba muy liggéey fas la waroon kon kat ku waru fas wàcc nga kon nag nañu fas yéenee liggéeyal fas wi bu ko defee nag kenn ku ci dugg na nga wootee bii boo ko wootee mooy dimbali nga Abdou Ka jàppale nga Matar Diop waaye jàppale président Macky Sall ba nga xam ne bu ëllëgee lu ñu bëgg a def ci dëkk bi danañ ko mën a def maa ngi sant soxna May Jaw nag mobilisation bi am na solo sant nañ la bu baax yaa ñi nga àndal ñëpp soxna May la nga diggee woon def nga ko waaye ñuy tam fas yéene nañ liggéey ci yow danañ ko def dama waxoon nag ne incha allah bu seewee yàlla li nga xam ne bëgg nañ ko ci ndindi danañ ko def man nag dama mënut damay ab nit koo xam ne dëgg rek nanaa la defal lii danaa defal laa ngir bëgg la fas yéene na ma laa wax jàpp ci ci yaakaar naa bu ma ci jàppee moor xam na keneen xam na yàlla mën nañu bañ xëccee leen li ngeen bëgg mu ñëw waaye li may bañ diggee ëllëg ñu ne la fa laaj Ndiaye diggee woon déedéet wu wuñu lii du élection présidentielle lii du élection yoo xam ne nii dafay waral ëllëg li ñu bëgg mooy jàppale leen candidat bi mu falu su faloo bu ëllëgee ñun nu mën a dem ci candidat ba xëcceel andil leen loolu nag li koy waral moo ngeen jàppale ko ñi ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant waa zone 2 yi ma àndal boo ba léegi noppalu leen gudd noppalu leen bëccëg man sama absence ak sama présence lépp ngeen xool li ngeen ànd di liggéey rek tey nag lii firnde la joo xam ne ñii wane nañ de wax dëgg yàlla ànd ngeen ak ñun ñi ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp